tey it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo ah dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Show Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu ña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamine Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Keresu Investment Limited mu ngi la ko fa amal Keresu Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash muy jar si ñaar téeméeri yi junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junne dalasi mortgage mortgage nag foo ko dégg mooy euh, fay nanka-nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benni weer ah dama ne kay na su properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw bandang kera su properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu Salameh Kerewan عليكم باكي دير في الكتيان باكي سي sur Femoray TV nuñ koy defee saa su nekk rek Pulo Ardo Show lañ leen wax bu la nee ñu war every Wednesday on Gambian Talents TV buñ ne Pulo Ardo Show foog ñu wax si yëfu entertainment buñ ne yëfu entertainment Gambia foog si Gambia nañu ay ndaanaan tol yëngatu si music di yëngatu si entertainment di def lu xarañ macha allah ah, ñu nekk si septembre di dugg si octobre novembre nar a ñëw ak décembre events yi war a bëri lool macha allah ah, ñu bëri di organise ku nekk di génnee fu ne ñu am artiste bi nga xamante ne ku xarañ la ku yàgg si géew gi la ku yàgg xuus ku yàgg xosul ba mu egsi fu mu egsi nii bu ma ko waxee rek ah, ñëpp dinañ kontaan ndax xam nañ rek fuñ ko oo rek ñëpp yow du xale yi ah, du mag yi ñëpp ko bugg ndek lu muy def ah, deful dara mu ne moom dafa nar a def li nga xamante ne moom kesee ko defa moom moom rek ko ñeme biir Gambia nar def li nga xam ne su ko defee rek Gambia dinañ xam ne def nañ ko bu yëngalee dina xam ne Gambia yëngatu na bu baax a baax a baax moo tax tey dafa ma dara lu dul dalal ki nga xamante ne mooy Big Faa boo leen déggee Big Faa seen xel di dem si Big Faa versus Ngaka Tallinding versus Géejawaay ah, leen wan ne nag ah, Géejawaay lu mu yëngal ah, ko ëpp leen wan ne ne Tallinding nga leen ëpp doole ñoo leen mun nañ leen duma daan leen duñ seen morom nga xam ne leen nar a moo ko isi Big Faa Big Faa bàyyi naa la nga waxal gars yi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum di ñëpp ñuy seetaanaat Gambian Talents no it's your boy Big Faa borom bagage anything, anything, very far up. So yeah, we need to follow once again, you know, the new, you know, the judgeful guy, you we set on once again. You know, man, some boy, some boy will Very far up in the building again. Gambian talent la waat so am na yu bëree yu ñu war a leeral tey yu ñu war am nga jokkoonante ak askan bi ñu am ne dañuy seetaan ñoo xam ne dañuy déglu you know muy rumours buy daw si dëkk bi tey ñu ñu toog jàkkaarloo yéen war koo leeral faram fàcce faram fàccee ko ngeen ko déggandoor mu ne dañ koy faram fàccee leeral ko benn par benn duñ bàyyi dara wax naa leen Guédiawaye Vassos Talending xam ngeen xale Talending fuñ fële rek nga xam ne foofu la suñ sansee nga ne macha allah foo leen oo ñu wuyu la foo leen rey rek ñu deeyee fa foo leen oo rek ñu wuyu la bii faa nga nar def lu mel nii euh, dem ba Sénégal mm-hmm. indiwuloo kenn nga dem jëli euh, ngaakab leen buñ ne ngaakab leen ni ñu koy amale ak dib du gis bu du toon ak dara Euh, big fa dig fu mu toll bi leen moo ko doon raw mais leen na ñëw si diggante bi rek ba tax àggagut foofu noonu ah big fa diggante bi ba tey nga war am show ak njaaka bi leen ñu koy waajal naka la ñëw yi Yeah, Lee, you yagala, you know, no hammer said that go yaga toga, you know, before anything, before Ngaka did them jail or stuffs, you know, because the relationship was there since 2015 you know, you get um, this connection, you don't um, this mind, the concept was there, but I think the community regular job to execute more than like 12 October, but it's been a long time. Like, okay, man, Buma really discover guy, didn't humble, fed you know, build the casa. Uh, Niti Hammer, you know what I'm saying? like you know to my people like big up Aliu Aliu Sane, big up Pop City Raz, you know, Tilada, gars yi ñoo xamante ne ñoom ñoo ma ñoo ma ñoo ma wane Dakar ñoo ma fulal ñoo ma introduce ak artistes yi you since 2015 concept bi yow dañ war a def di viril between Sénégal ak Gambie because ok luñ bëggoon luñ bëggoon a fight mooy comme you know why Senegalese artists always come to the Gambia and then jël ñu dem te benn artist from Gambia du dee dem jël Sénégal ñëw you know what And we cannot blame the promoters all the time because Nikita Momo Boba. So you, we have this concept that yo, definitely you mun a ok ñun dinañ mun a wane suñu boppa Sénégal Sénégal dinañ mun a gis dinañ mun a xam ne Gambia am talent you know what I mean because these talents like ok take, da gis ne di nga gis artiste bu jógee Sénégal ñëw fii ñu fekk ko baax bu bëri en gis ne yow suñu artiste yu nekk fii sa mii bi kooku daaxu leen daaxu leen a def lu ñoo def ba tamit ok dafa des comme ñun naka lañ fëlee ak naka la ñu dee xoolee ak ñun naka lañu nekk di doxale parce suñ amee i promoters yu xam ne Gambien lañ en ñoom ñooy keep dem jëli gars yi asi leen fay ñun lu ñu dee yóbbu foofu noonu eh, daf demee ni style is not Sénégambien pour mu nekk Sénégal bi dafa war a nekk viril ak fara like ok ñun léegi xaaratuñ promoter wala producer wala anybody ñun dañoo defal suñ bopp because it's our generation and I think ne ñun mun nañoo break borders yi def this connection to be real through music because yàgg nañoo dégg Sénégal bi but still like so so so so demee Sénégal amuñu benn artiste fii but soo ñëwee Gambia artiste yi Sénégal yëpp lañ xam yeah so léegi ñun ok nii la ñoo def dañoo dem dañoo def fii show ak ngaaka suñ ci paree ñu demaat fii la def fa show. comme ngaaka loo may wax ne. Ah, ñun ñu ngi wax ne octobre 12. dañ nar a dem toj place bi. waaw nar a dem def history. nar a dem wane suñ bopp. wane Big Faa dem na Sénégal dem na Géejawaay. waa Ngaaka Blindé bu ñëwee Gambie dina xam ne lépp dëgg la. daf na di pare muñ Big Faa mu ne su paree Gambie dafa nar a dem Sénégal. ak virib barab fan yii foo gestu ñu ne la virib barab. dañoo dem Dakar def fa show comme nuñ ko defee fii and then like Ngaaka su ñëwee dina am yeneen artistes yu ñëw like from Sénégal ñoo xamante ne maybe Gambia ràññee buñ nekk like ok Edmo Flow eh, dina ñëw beneen artiste dina ñëw beneen dina ñëw like suñ ñëwee ñu wane seen boppam and then suñ paree fii ñu dem Dakar. ñu dem yóbbuwaat tamit some few artists from the Gambia ñu dem ñu teg suñ own concert you know what I'm saying foofu noonu ñun foofu la ñoo wonee suñ boppa and then Sénégalais yi ñu won leen ne ñun we can and ñun suñ waa dëkka nii la teg nii fii la fii la ñu teg nii la ñu fonkee because su fekkente ne ngaaka ñëw na fii and then eh, Gambien yi won ne ñun dañ rek Gambien Gambien we rapping Gambien lañ am suñ artistes yi lañ am because ñun tamit amuñ dara lu dul Gambien moo tax ñu ngee dee pour di ko repister because fans yi suñu delloo nag énergie ñun amul dara lu ñu def lu dul rey suñu boppa liggéeyaat pour le Gambian flag go to the higher level naam sane so loolu rek mooy job bi right now ok virib la ak varab like ok virib bi Gambia 12 octobre and then after loolu ñu varab Dakar naam sane juste dañ bugg a comme lii mu mu mu nekkal luy dox mu nekkal luy dunda mu nekkal loo xamante ne afta duñ wax ne eh, eh, sénégalais artiste wala gambien artiste like ñuy demalante because fii nii ñun gis nañ fi sénégalais artistes yu fi seen own show te kenn. assuré dañoo ñëw explore suñu artistes yi. kenn kenn ba pare dem seen yoon. loolu gis nañ ko fii bëri na torop Gambien sénégalais artistes yooyu foreign artistes dafay ñëw eh, ñëw di def ak collabo ak suñuy artistes use leen man damay ne leen di explore ba dem seen yoon ndax jël nañ ñuy dugal ba pare dem ñu ñoo am fii lu ees mm. eh, ñu ne 12 octobre fly bi génn na mm. eh, ku dugg Facebook foo munti dugg gis ko 12 eh, octobre la ñu wax ñu ne Independence Stadium ah bi fa mu ne bii yoon Independence Stadium la nar a dem te su demee Independence Stadium dafay ànd ak bi nga xam ne safara bi nga xam ne lu ko nar a fee yombul parewul si mu ne ma dafa nara a demaat Dakar buñ paree fuñ nar a dem stade bi Babacar Diop. wala wala wala wala naka. stade fu mu ko defoon rek lañ koy defaat. donc biir faay la sa dem Dakar amul njëriñ xamoo xamul fenn xam naa su <laughs> ko laajtee Guédiawaye ban street la ngaa nga dëkk sax xamul. non loolu du ah. problème bi de man xam naa fu ma dëkk Dakar mooy parcelle 15 maa ngi dëkk à Pape si. boo biir fa foo jàngee français. man parcelle la xam xati ko. man parcelle laa dëkk 15. 15 ay waay ah. gis ngeen fan yii biir mu ngi jaay ay gaa mu ngi jaay gaa yi. faral bi a dunda. because dégg mu def ah, benn vidéo advert. naka for sure léegi bis fa ñëw di ma laaj ay français. non noonu lay demee moo laa wane comme connexion baa ngi déglu ngir yàlla ngir ñu ko dundal. koy yeah because tey like ok tey dara gëru tan ne nga ka taxaw on stage sol t-shirt Gambian flag Big Faa taxaw sol Gambien eh, flag so loolu moo laa wane comme ok now is Sénégambie because ñun balaa ñuy judd ñu ngi dégg Sénégambie ñu judd dégg Sénégambie maaga dégg Sénégambie but to me it's not real because still ñun need something from there like du dee mun easy ok so this Sénégambie nag ñun léegi dañ koo connect mu nekka lu déglu mu nekka lu real ba amatut laajte ID card sax si boodam. ñëw rek si from ak mu métti balaa ngay romb la dinañ dina la scan dinañ la baaraam finger finger print dinañ la bo bot dina dinañ la lu nekk dinañ ko print. léegi loolu yëpp a génnee soo ñëwee lu non loolu loolu loolu loolu rafetul suñu diggante may ah sooy dugal Sénégal mu mel ni terroriste la. dañ la palpé di la saaj di dina di la di la nataal di la picture di la ma dama di ragal da suñ scanner duñ dee gis sa yax yi yaram bi yàlla ñu yàlla you know léegi ñun luñ bëgga mooy Sénégal bi mu nekk dëgga mu nekk dëgga understand nga because lii dafa yàgga en ñu ko laam-laame di ko seetaan suñ ko seetaanee dañoo ok Moussa Ngom fii la sol ñaari dala yu niroo bu di represent Gambia ak Sénégal gars yi saagane ko même dee and still nekkuñu di comme gis la la doon fay man na dama solaat daala yooyu mu fas yéene taxaw ne ko cuk. ne cuk jërëjëf barab ñoo ko dégg la tey cuk la wax tey waxut anything anything tey ay yuux amu fi tey sunkutu naka sungutu ñimmaango saribo ah. amiga bonitango saribo ah. sungutu ñimmaango saribo amiga bonitango saribo sabuge lu jar rek naa ko jënda mm. fu ma mun a dem rek yóbbaale la duma mun a def dara boolewuma la bilaay walaay man yow laa bëgga baby girl oh baby yow bul ma miin be fatema baby girl oh baby man duma la mere be bayilla sungutu nyimmango sadibo amiga bonitango sadibo sungutu nyimmango sadibo amiga bonitango sadibo jege momo fila mel ni loxo ci poos hey waxal far bi naa la nangu bay force eh borom bagasi namuma nose big fat dafa ñaaw namu jeppe bu nice very bad <laughs> kan mu ne big fan dafa ñaaw namul jeppe bu nice waaye ma wax leen nak ku rafet ko dafa nga ànd ku ñaaw ah, yëf yi fi nekk de fi ah. ñaaw am keneen ñaaw lu du dem yi du dem suicide la suicide bomb du def jàng jàng ak big eh, eh. ah, full big sa wasi de tey waaye sa far bi na na waaye sa far bi naa la nangu bàyyi force su dafa fekk fu mu toll la si man te góor bu nekk tey su gisee jigéen dem aaga la yéenay comme fu mu dee am na fu mu dee aaga doo ko bàyyi dangaa dem and you go for it danga koo because yàlla bu mu am far bu tey nag dinañ toj kaas Big Faa kan mooy kooku kan mooy kooku kooku xam di musique kese la de ban musique fan. ay eh, biig fa am na koo xamante ne la pàccal sa limon. pàccal limon. dina dina dina gis limon teel. waaw ni mu ko gis nag <laughs> dina dina yëngal yuur yi dina tax biig fa du du xaw ma fanaan internet bi di teg sa ka koor. teg sa ka koor man non non. ko ba am wireless. man dama de teel a teel a sax. déggal fa man nii ngay. ba pare nga eewoo nag lool. biig fa naka mu doon ma danga ko wax mu naan dama dee teel a tëdd waaw duñ def dara suma caméra lady bi naa ko waaye big fat live yeah t-shirt am bu nice bi waaye dafa sol t-shirt ñëw toog dafa waroon a indi beneen ma sol mu daa t-shirt like ok su ñoo dem pour dem jëli ji like ok di am t-shirt seen seen seen TV you know Gambian talent at least you know join them t-shirt ngeen ñëw cover affaire because didn't know on the eight and then then we got def a big road show boo xamante ne you know not have the ñëw na Gambia at least Mugis, you know uh, the difference between Gambia and Senegal you know Mugis gis Gambia they rep their artists and then they welcome another artist from the neighborhood like the neighbor neighbor countries muy Senegal Mugis, gis ne comme is gonna be real Senegambia not anymore like Senegambia, Senegambia, no, léegi is Senegambia and real. Senegambia and it's real. bi fa moo ko wax ah, kon nag on pour euh, leen kenn njëkk foofu ñuy wax fan suñu international airport bi make sure leen ngeen nekk fa. non tamit noonu la mooy ñëwee. lan ah, ah yoon Banjul lay ñëwee kon dafa bëgg a da nga ñëw indi da nga bëgg a def Ngaka Blindé mu ñëw too jaar Banjul nga ne ko fii mooy capital city bi baara duga Banjul génn a Banjul ñëw dina ma neex am dalaay lay njëkkee ñëw ay Fass waaja gars nañ ko teeru like Saints Bara Jakarta yeeg fas yeeg mbaam yeeg puus puus yi. dina ma ne waaye bi fa euh, leer na ma ne euh, du sa first time ngay organise show mkubwa mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. first time no, no, no, no, no. I think this is the first time, maybe October. It was like November, December. But so you said this time October, put by that noise, like because everyone is going for November, December. So then I guess they like, yeah, we know October, I have the noise we better, you know, because so said there's last event, I'm on date class at the promoter. Uh, so this time to avoid that ñu ne ba nu wàcca tuuti to octobre nga xam ne yow dinañ def suñ event suñ am headache and then day boobu mu nekk ñun suñ own day boo xamante ne kenn du def event in the Gambia because what you doing is for the Gambia pour Gambia yëpp ñu ñëw ñu represent Gambia yëpp ñu ñëw ñu support because suñ ne Gambia versus Sénégal I think Gambia dañ war a ñëw ñu support loolu dañ war a génn si dañ war a gis seen si loolu loolu ok euh, gisuñ benn event bu am that day def ko national event nga xamante ne kon dëkk bi yëpp dinañ ñëw ñu jàpp si and then woon Sénégal ne ñun we here representing and then 100 percent. bii faa dafa mos de octobre 4 ko nekkee felaale def lu ko neex ba octobre yaa ngi borom ba beneen programme doo nga ñëw xam na ne su ñëwee novembre beneen show dafay ñëw. waaw tem ñu ne ko ne big fasa showbiz la dee guddee man damaa dem beneen show wala mu nar koo def dixième ba sax ñu ne ko hey yow place bi nga jël dañ ko occupé ba pare yow big fa da nga da nga yow da nga def research bi xam système bi ah, man, man, man, man, man, man, man, ma ñëw man man man man maay système bi maay système bi maay système bi because I am part of the system tey soo ne système bi mooy ñun so we obviously have to know what's the system of course we know bokka si xuus si xam nu demee nga ne man na october first ba october twenty fourth lu ma nee def. of course of course like okay kenn bëggut a jël nga jël xaalis jël préparation bi spend money spend energy spend time and then the whole team nit yu bàyyi seen soxla yëpp jàpp si bagage yi with David job and then we am beneen bu nekk fële kooku du am lu mu bugg a yow doo because Gambia dafa and then we only have one the same crowd. yeah you're right they share the same um, fans. they dee mën a xaar a big fan at Tana class. Many independent Stadium Independent Stadium begin. jël twenty something to thirty something people. yeah. No one nar the defee lu tax nga tànn place bu Independence. yeah because if you get a rëy Gambia. ñun fu gën a rëy lañ soxla because it's Gambia versus Sénégal tey beneen team football su di play Gambia fan la ñuy play. thank you yow fexe. <laughs> suma kër kon maa ñu toxal show bi yow sa kër la ñu def. waaw waaw Big Faa bi dafa la. day fees wala lu muy def stadium bi yëpp mu nekk ak benn cuk tu cak cak tu cak cak tu cak yëpp nekk mu nekk ak benn crowd benn stage. mu jeex because soo fa ñëwee da nga war a gis Gambia like soo ñëwee si bi ñu da nga am pour gis ne Gambia ñoo represent et because suñ demee Dakar tamit gis ne yow Sénégal ñoo represent yeah now we dominate through music like comme Bob Marley nu mu selloutee Jamaica comme Michael Jackson Tupac nu meloon America like Youssou Ndour you know Sénégal you know, Young Whiskey, Davido, Nigeria, you know, why not Gambia to like Gambia guy the first and the stadium get for jógee foofu feesal yeneen venue because loolu more the respect like okay, ok tey soo demee Sénégal nga génne footage video, vidéo wala picture and gis sa event is like this respect bi day daw wala mu mel ni daa foofu anything daal cooli cooli uh, big fella. stadium ku la fa diggal ne ko mas day fees dal ay may ma naan sax danga koy xalaataat koy gëstu ne ko may ma naan ndax doo am time bi si daal foofu laa ah, ne buñ ne red white blue white green ñu ne lan red yellow green yàlla ta am am am lifin bi si digga bi si but luñ ne naa mooy you know Gambia 12 octobre Independence Stadium 6 o'clock meeting dinañ door di dugg si stadium bi incha allah. o'clock waaw. Big Faa man boobu dina ma jaaxal trop ndax artiste Gambia programme Gambia yu bëri yi ngay attend dinañ la bindal si seen flyer bi 9 dama la ne 6 de 9 lañ lay wax. nga àgga foofu noonu 9 nga toog ba 12 wan balaa may dee dangay ñëw taxaw ñu ndox yaa ngi lay yow yaa ngi taxaw doo toogu sax soo toogee sax. dañ lay wax né jogal togu bi pour VIP la togu bi pour fili lii la bi fa ñëw né ma 6 o'clock bi fa loolu jëlal sa caméra ak sa team nga dem si stadium bi 12 octobre 6 o'clock nga gis nga cover lu fa hay def ko lay si ngay happy sa defal mo lu man loolu man man loolu duma duma duma naqari nekul li ma sona man yéen ma taxajok heure boo ma ooyee la dem wuyu luma ci si gar ko ndax gàmbee la ñëwaat lolu xamna ci dara waaye Big famal, man fa egsee six sokro nara jakarlo ak yow dana jakarlo yow jakarlo ak te xam naa da ngay loolu ndax man su ma jëmukaay bi muy loolu. man nëbbuwuma fenn dawuma tiituwuma demuma fenn. te mu tokiram ñu ne ana Big Faa Big Faa ñu wax gudde xamna ega bu stage man su su de yaa sa keur sa Big Faa na la fekk sa dama lay jëli sa keur escort ak suma caméra mi ñu dugg bir stéréo escort wax sax la ko stade stade. dégg a sànni ko. stade bi ko yéen artistes yi ko war a dégg. ah artistes daal macha allah artistes yu si les bi like ok Gambian artistes yi ñu ràññee yëpp like du ma mun lim. but dinaa uh, la xamal few artistes yoo xamante ne you know jàppal naa ne di nga di nga ñu am Mike Jada di am Ojilo di am STG. Nobles, Jizzle, Jais, Jai's, MC Bite, you know, you got um, Big Rose, you got um, Sophia, you know, you got um, Binzi, you know, the Queen, Mufa, you know what I'm saying? Like, yo, and many, many, many more, many, many, many, many more Gambian stars, you know what I'm saying? Like, Dylan, um, Edmo Flow, like, yo, i um, Attack in the building. yow dinañ am dinañ am dinañ am maha maha di xama dinañ am MSD dina am seen dinañ am suñ ndóo mooy mooy mooy suma suma doom la sax laa wax ni you know mooy Junior King koo xamante ne moo war a open show bi you know Halimun Dawla mooy doomi King of Rhyme be like ok did leen got you for the first time you know this kind of platform because do we, mashallah, allah yal ko yàlla are because Alhamdulillah, we ngi def nice and then you know si jéem bi xam nga bàyyi moo demoon mënut a dem léegi mu jokkoo leen. waaw bàyyi bi mënut a dem mu ne bàyyi bu bàyyi doom. jokkoo leen yooyu you <laughs> know yeah yeah so uh, obviously. you know dinañ am ni stars yi yëpp ñu nga xamante ne ràññee nañ dem si Gambia bi comme as an artist dinañ ñëw perform it is is Gambia versus Sénégal so ah, télé yu war a jógee Sénégal ak promoter producer ñëpp ñu war a jógee Sénégal dañ war a ñëw Gambia pour gis exactly what is happening nan moo fi nekkal la nga dee dunda ak naka lañ def defee suñ affaire suñ thème you know so ma gis na it's gonna jox artistes access. We want to send seen to that night and then you know we get ne connection with dina mun a daw because lu nekk mun na fa am um, you know promoter from Sénégal mun naa gis artiste from Gambia mu liggéey producer mun Big demee biig fànnalu jàmm su ma leen waxee biig fànnalu jàmm rek a dégg ngeen ko ci biir ay waxam dégg ngeen artiste yu moo fii yëpp yombul neexul ba neexul ay naanaan kese lam fi man xamoon naa ne bii fa du ànd ak ay xale du ànd ak ay ndaw du ànd ak ñi nga xamante ne muy loolu duñ def lu kenn bëggul foog rek mu ànd ak ñi nga xam ne su wootee rek ñëpp dinañ xam ne moo wootee Big Faa nga ànd ak nii yëpp Big Faa stadium nu mu nar a man bés boobu noonu daf ma jaaxal on est thème Big Faa génn stadium stadium ñu ñu ne dañu construire dañu rénover stadium bi. waaw te yeneen artistes yi duñ mën a am show Big Faa bay soxor la billaahi yéenay <laughs> dem yeneen artistes yi ñu ne leen ñu ne leen demal beneen demal nga ren beneen xool. parce que studio bi dañ war a rénover kii Fatick la. non mu ngi cool mu ngi cool dina mel dinañ ko def dem marché la su ñoo toj moom dañuy toj ba mu wàcc yëpp waaw su ñoo baax ñu baax dem dem dem dem marché. nangu nekk da nga soxor. da nga soxor nar a toj stade bi fii dem Ndakaaru toj stade bi foofu noonu bu boobaa Sénégal bi yow a yàgg. non non dinañ bàyyi dara pour gars yi tamit. by force the old money guy, and then you know the work guy, and then need more venues like government venue, Japanese artists, RTCC venue, center, national center, sir. But I want to infer different events because it's very hard. Like okay, Ganga Sola Stadium, be national side, we saw Dokomuna am. And I'm saying, you know, so it's very hard when you guy in the GL center, but I want to play some show because music they can be like Boka and you we are contributed to this country and loolu noonu su amee nekkul ne artistes yi rek la moo benefit fii am na ñuy def théâtre am na ñuy def design am na ñuy def fecca am loolu yëpp ok we need it we need it for the youth like Gambia amul benn centre boo xamante ne dañuy ne national centre la boo xamante ne yow dinañoo def event amul pincam yi maire baa ko moom te ñun léegi amatuñ fa access because maire bi mu ne ñun suñ fa defee show dañ dee yaa so amuñu access boobu noonu ñu ne gala dina la ko jox gars yi ñoom ñoo xam ne dañ ñëw rek toog xam nga enjoy seen bopp ñun our people our crowd gars yi ne dañ rough you know what I'm saying waaye like ok ñun any fans bu ñu am dañ koo jël like fans yi taf fans yi saaca fans yi jaaykat yi taay tukkat yi taay ñun yëpp lañ am but tamit like ñun suñ job mooy pour di like ok wax ak gars yi and then they know exactly lu baax ak lu bon you because fii kenn bonut like dafa tës rek comme noo ko nga bëgg a dundee maanaam sax. ndaxam life bu ñuy dund la. ay rap ngay ànd ak rap. ñu ne lan rappeur nga am ngay déglu musique bi nga déglu lu muy wax ndax dafay woy li nga xamante ne maa si big fay daf koy daf koy gis muy xel luy raam li dox mu ne man maa koy dóor mu dee ko mu dee man su may déglu façon musique yooyu noonu foog yéene ma cuqate ko. non dégg nga dégg nga neexut dégg nga moom moo waaw fii dëggantaan sax dañu ne dëggantaan a neex dëggantaan a gën a naxari because <laughs> soo ko waxee ñu bëri lañ si dee mer yeah te soo nekkee wakkati dëgga danga dee bëri ñoo xamante ne nga dee make space you know soo nekkee wakkati dëgga danga dee bëri ñoo xamante ne nga they criticize because dëgga booy wax daf leen dee you know dëgga booy wax daf leen dee disturb so no, no, no, time pour put seen inside for you fight Like. and it's happening like every day but ñun duñ bàyyi duñ tare te amul dellu gannaaw because this is a misa yow music dafa xaram léegi soo fa nekkee taxawuloo askan bi lan la waat looy defar nekk fi di woy cepee rek ah yaa woon seen dagit yi gars yi bi ba doy na doy na moom tem mu wax ba wax fii xay ñu tem ñu génn ma ak moom rek xam nga moom mu ngi ànd ak escort kenn du ko ñemee attaque ma génn ñu attaque ma damm ma man ceeb bu sew laa dama moom dafa yomb torop sax. kenn du laal laal waay dama dugg ci yooyu xalaatuma ko sax xalaatuma ko big fa ñuy ñëw. ñu hmm. nekk eh, nga nekk octobre. 12. octobre 12. Independence Stadium Independence Stadium. yeneen events hmm. di ñëw. artistes yeneen di oote. di xewle. ñu hmm. yëg ne ah, am na coow luy lëmbee réew mi. three years jot na. yow nga nekk di yëngatu si musique di yëngatu si entertainment industry bi. te dixième ba dafa nekk li nga xamante ne. ñu bëri dañ see bugg a def seen show dañ see bugg a gis seen bopp artistes si dañuy bugg a wane seen bopp ndax ñu bëri dañuy ñëw Gambie yéen kane si seen fans bëri jógee out ñëw fekk si leen a gisante ngeen defante ngeen yu baax three bi di ñëw nii ak ni ñu koy déggee naka nga foog nu muy demee ak yéen three years jot na du ma si wax ba twelve ba thirteen octobre three years jot na man ok xam naa duma dem di fight si benn bi du ma dem di sànni xeer du ma nekk di xëccoo pour ay trier jot na pour affaire si mu leer mooy promise na askan bi ne three years dina wàcc but signu three years dana wàcc pour muy leer comme foog ñuy bàyyi xel si loolu foog ñuy bàyyi xel comme yow tey nga promise ma ne su ma ñëwee di ma jox may bi ma ñëw joxuloo ma may bi xanaa dama war dama war a xeexaa defal ndànk loolu des na si góor bi ndax gore na wala gorewul waaye taxul nit ki gorewul danga ko war a xeexal baro mi three years la moo wàcc but the constitution mi five years three years bi kat ñun ak moom la kon ñun la éegal su dee wàccu daf ñu éegal waaye jarul nangu ne daf ñu éegal léegi yow ku la éegal rek da ngaa fay taa moom déedéet na ngay bàyyi xel si loolu bu baax a baax baax because tey su ñun suñu xeexee fii ñun lu ñoo soona Barrow du ko soona de ñun lu ñoo face Barrow du ko face ñun from the street ñeneen ñooy ñaaxa seen bakken ñeneen ñaaxa seen tànka ñi ñaaxa seen loxo ñi ñaaxa fa bóot ñi deret tuuru baro kenn du ko laal kenn du ko def anytime so yooyu dañ ko war a bàyyi xel mbir mi du xeex passé nañ foofu passé nañ mbiri xeex dégguloo mel la ne yéer mande yéer mande xanaa yéen yërëmul leen ñu man élection laa leen di xaar ba yi wax ne soxla nañ ñu dafa yomba it's very easy yaa jame moo fi gënoon a xaar dañ sànni karta mu dem si jaama peace la moo yaa jame bu mu ne du wàcce gars yi génnuñ si mbedd bi dem fight <laughs> ah, ah, dëkk bi dafa neex añ leen maintain neexaay bii nii comme am nañ peace di wax comme free freedom of speech man maa ko enjoy gis suma music sax dama dee comfortable pour binda yee lii laa fii loolu laay wax am na loolu am na peace am nañ jàmm Gambia nag bokk na si dëkka yu gën a poor so suñ fi creator xee dafa bokk si dëkka yu gën dee understand ñun nii du fight nii du ñu xuloo what we need is this mentally comme borom xam-xam yi lañ soxla gars yi nga xam ne dañ dee déglu di understand dañ dee xool di understand nekkul ñoo xamante ne yóbbuwaale lañ Gambia dafa bëri yóbbuwaale comme ñuy taxaw rek di la wane three years bi dañoo fay damu caaba demal nga dem nga fay after lan mooy xew soo fi faytee ba dee lan mooy xew kan moo laat They let them soul. After life goes on, man. They not cheer what, they not party what, show you they not amad. <laughs> no, I'm, I'm, I'm serious. Five years, sorry wood. Man, I am not here for politics. I am not here for no politicians. I am here for the country. They contribute more money, They can. They go on and defer. If you Yahoo, you defer. ñu ngi si loolu pareeguñu sax defar nga war a create tension fight three years jot naa génn si mbeddaay di fight yow am na ñoo xamante ne ñu ngi si dëkk bi ànduñ si loolu am na ñoo xam ne ñu ngi si dëkk bi beneen side beneen population ñoo xamante ne ànduñu si three years jot na yow nga am sa team nga ne three years jot na ñii ñu ne ànduñu si three years jot na government bi ànduñu si three years jot na léegi ñooñu su suñu waree tasee west fii yàlla nañ si yàlla musa na na na non <laughs> non na na na non na non, na non, non, I want some people to answer some questions. yéen a ma gën a noo daal mais comme que ko wax rek. yan si yéen a wàll naa comme ko wax rek. yéen wala incha allah ñu ngi dund ni nooyi. di leen déglu Big Faa lu mu nar ak fu muy fëlee boobu man maa ko wax Big Faa. three years jot na bi foofu loolu dina affecté music industry bi ñu koy waxee nii. yow daa nekkul di affecté sa tubaab yu war a ñëw si réew mi yokkal ñu koppar ak koom si réew du bom sa yaa ngee aalu ku fi génn three years jot na ñu reyantee yow eh, moto ndaw bu tànga baa si corner bi fii gis naa ko maa ko teg bët nii jàng fii fii pam pam ñaar la ñaar yooyu ñoo ubba yu nekk Sénégal sax <laughs> moto ndaw bu tànga baa ngi fii fii fii fii Kanifing fii fii la nekk nekk bu Sénégal Buneka Gambia mo opa Buneka Sénégal two times so na ko gars yi bàyyi man I love my life I love this country but I love my life loo xamante ne mun nañ ko def te coow du am is very easy ñun nii duñu coow tubaab yi ñooñu dee suku-suku ay kirib garab nii waaye doo déggal ñu coow dëkka yu fi créer tension yëpp ba di xeexaat seen président bi nit yi dee foofu ñu ne seen président dafa war a génn by force duñu ay tubaab te tubaab yooyu ñoo ñu jàngal loi tubaab yooyu ñoo ñu jàngal la moo tax ñoom duñ leen dee gis duñu xool si gars yi tubaab yi they are very wise and still using black people to kill each other arab yi di same thing ñoo fi dee jóg kirib karab xeex eh, fii kirib karab xeex eh, ba rey seen bi after loolu noonu jaama du dee mun a am Libya lu fa nekk ba léegi Gambia dafa ndaw ba pare amuñu koppar dégg nañ sànni nañ pétrole sànni nañ ko buñ si wax léegi na after 12 octobre. lépp dañ koy denc dañ koy jël rek package ko denc ko ba after 12 octobre incha allah suñu yàlla mayee wér ak wér la ak tal ñu wax si bi Fallou nar a wax nag after 12 octobre nar naa bëri torop sax te yàlla man birib barabam bi sax man duma xaar birib barabam bi di ma won man may ñëw sama birib barabu bopp ñu wax si ah bii fa nga nekk si artiste yu mag yi yàgg si géew gi macha allah yàlla dogal na gi nanguloo Gambie dem Europe. wala dem Amérique pour fofom waaye dem ngaa dem Sénégal ba indi fii dara li nga xam ne mu ngi xamul fa def first time ah ñun nar koo witness. Mm-hmm. mu nar a nekk bis bi nga xamante ne man moom six o'clock du ma leen ne maa ngi stadium de five maa ngi stadium five laa fay dugga ñoo toog di xaar big fan ñu gis am artiste yu demoon uh, Europe. Mm-hmm. dem represent Gambie bi. ren macha allah amoon nañ Sophia Baas demoon na ST moom I think ba léegi ñëpp séerul ñu am Barhama Thiam mm-hmm. ah ñu am Jisul ñoom ñëpp ñu euh, yaa yow loolu naka nga gis-gis loolu noo ko gis yow loolu mbégte la comme yokkute la si ñun because nga dem demuloo su artiste yi demee te yow ngay artiste dafa mel ni yow dem nga because lan lañ demoon Touri Gambian artist Touri Gambian music te Big Faa génnut si loolu so man I am glad dama ko celebrate surtout tamit lu gën a nice gars yëpp ñib si waat loolu ndam la si ñun because dafa wane ne bunta baa ngi ibeeku ko ñun toog nañ fi ay at yu bëri dañu dee reject ba ñu yëg ko pour Gambian artist génn fi tukki it was very hard because ñu fi nekkoon ñu bëri dañ dem daw you so ñu fi nekkaat tamit pour ñu am access bi génn dafa métti but alhamdulilah gars yi am nañ yoon bi dem nañ def nañ ñu war a def and then ñëpp si waat nañ respect nañ seen bopp loolu respect sa bopp si la bopp kon nga dem perform Europe ñëpp si because at the end of the day su fekkee da nga dem Europe di daw mais dafa mel ni yaa ngi start at zero fresh te soo nekkee fii yaa ngi def show yaa ngi am sa baa ñu ngi laa fay si i shows I don't think ne war ngaa dem Europe bi daw su fekkente ne gëm nga sa boppa ne real artist nga daal moom gëm ne doo dem Europe bi daw lii is a plus to us and maa ngi like ok congratulate ñoom ñëpp ñu dem ñëwaat si jàmm and then di ñaanaat next year mu ibbeeku waat ñu dem ñëwaat si jàmm next year da ngay dem ma ànd ma laa dugal si ah Big Fall boobu de lu ma àgg man kon de ñi àgg ñi man bokkuma ci sama naree dugal ci baax fii ba fan. Big Fall yow Big Fall yow lu ma la def. ne lifin bu nekk ma ibi la tuuti jam na benn fuus benn juus te jaar. nga nekk si jaama. esi bi du fay si biir. <laughs> bu liggéey maa ngi liggéey bi di nekk foofu la may dem teg su ma liggéey foofu ban teem la mooy am loolu doo maa billaahi bi kaye bu la dara yow dama leen bàyyi si biir rek gis naa ne bii quoi lu am lu ne man tam ko yéen ñi waaye eneen waaye nga eneen la su ma la jëlee dugal la si liggéey ji yaay foo nga dee gën a conforté bu yaa ngi tëra te doo def dara damaa ibi tërë dugal moo tax su ma demee ba dugal pomme dugal banana dugal juice suñu àggee ba nga ibi liggéey bi bañaay bala nga bàyyi la foo toog di dugaat si logéey yow ba amul problème. Hmm. bii fas yi dem représente Gambie yi rom du si logéey si suitcase lañ koy dugal jarul sax yenn yi suitcase lañ lay dugal bu la neexee rëy yow yow mën nga yéene lii amul benn problème. waaye gaa. suma waaye gaa. xam naa sa waay laa xam naa loolu gis ngeen tey mu ko doxalee rek. ñëw ko fii. Hmm, di wax gars yi when we talk about Gambia music, then what about come about the sponsors, about the event, because uh, even the 12th October, you see Jabba, Yip, Malena, Jaja, Fan, Kachengala, my first of all Gambian talent, Gambian talent, mom, nekul suma event be but any event uma am guidance, they Jabba, you know, they don't want the Jaja, like the Jaja, Fan, Kil Fatu, you know, guy, Tamilens, the Jabba, Fatu Network, guidance, the Jabba, Watson Gambia, guidance, the Jabba, GRTS you know you know gars yi yëpp dañ si dee jàppa like ok suma team bi tamit amul morom you know suma team bi amul morom definitely Talinding Fajikunda Chokistown guy they're doing well Kololi good and then suma partner bi Sisengari Entertainment doing well and sponsors yi ñu ñëw si Africell Global Property ak Lima Meew ñeneen ñu si des na xawma si ñoom dara you know what gis li ñuy wax la ñuy wax da ngay ca kanam rek. fi chaque jour ko. ku la nga man nga ñëw di ko yeneen bi fa yow lay bokk. non di di di lay bokk yow non man man I don't have this problem man man problème bu ma am mooy lan tax ñu. man wax naa la ba na bu ma ne dafa sooy bugg def advertisement ci suma plateforme bi. da nga koy teel a advertisement. waa léegi nga jël advertal sa bopp nii ba pare bi da fay si advert bi nga def nii. advertise advertise nga sa 12 octobre bi. waaw advertise nga sa dem Dakar bi. waaw pare ñëw nag taasul sa sa sponsor suma sponsor yi ñoo ñoo ñoo ñoo gàcce ngaalaam. te sponsor wuñ ma. non mais léegi yow tey man su ma toogee sa plateforme di wax seen tur. ëllëg si biir kenn xamul ndax gars yi yow soo leen feeñoo nga ne leen lii ak lii ndax duñ si jaafa kenn dafa xam ndax mus ngaa si gars yi wax leen lii man ni ma tudda fii ñooñu they are very good to the Gambian people definitely comme ñu ma fi tudda tey ñetta ñuy ah luñ dee defal Gambian artist yi ñu bëri duñ ko dee def si compagnie laa waxte non definitely comme suñ nañ wax dëggante dee rek laa laa waxte ñeeta ñuul tey Afriset Global Lima ñooñu lu ñoo defal Gambian artistes yi yeneen compagnies yi gisuma ñu def ko. waaw gisuloo ñu def ko. waaw waaye Big Faa kan moo la sponsor sa mbaxana bi ak sa caxa bi wax ko mu sponsor la beneen mbaxana ak caxa Big Faa bii soo ko naree yóbbu open mic wala nga yóbbu ko 12 octobre wala nga yóbbul ma ko uh, wax sa xalaat awoon na wallaahi Big Faa mu ne yow dañoo fay Big Faa foofu lay ak seen bi xanaa doomu xool booy la rek. Yoruba nga Igbo wala lan nga. wala Hausa lu ci nit xalaat nii lañ koo bàyyi. soo lii nga demee woon Guédiawaye di nga demoon wala Sénégal feeñ. feeñ man Sénégal gis nga koppati bi ak caxat bi moo tax ñu xàmme lekk ak fruit <laughs> Gambia laa nekk fruit juice meew sampo paradise Dieu ngay dimbali. moo nekkal Gambia very varal anything defal comme man maa ngi dunda ak Sénégal bi right now like dañ ma xamee Sénégal comme nuñ ma xamee Gambie. luñ la leen nit déet déet. man man man man man li fi naka la tuddati neexuma man métti ma ràññee. parce que war naa la loo ma ràññee ba pare mu yomb a <laughs> Iya. mana dek, dëgg léegi su ma paree damay dem jënd mbaxana bu mel ni mu posam ak caxa ya? bi. sol ko ba pare ndax su defee may lekk fruit naan meew sangoo sappo bii fois waxoon na ma demoon naa këram ma ne ko mu invite ma julli bi mu bañ mu ne su kon dee julli man ma dem dama jëndal apple juice wow, ak shampoo. bii fois su kon dee julli aku réer. juli lain ko bisu julli lay ñëw man man dama kamu sax fan yooyu xaw ma def ma ni mu danga ma hypnotise ba mënuma xam tamit ni man koñ laa war a jaaraat Big Faa di mel baaxul waaye loolu naa ko bàyyi ba si kanam dinañ si wax. waaw Big Faa nga wax si sa biir ay wax. Euh, Gambia artiste sénégalais boo woy bu dee teel a jóg génnee woy sax di nga dégg Gambia ñu koy woy di ko bëgge waaye recently Sénégal dafa mel ni ñu ngi commencé di ràññee Gambian artistes yi. of course of euh, nu may waxee ak yow Tivou Yafaa nekk fii mm-hmm. moom. fan yi moom it euh, daw nañu wax naa ko mu dellu si waaye daw nañu. Mm. ñu gis fan yële passé um, on euh, benn télé biir Sénégal ñuy wone euh, woyi Barhama Thiam. Mm. di si wax. Mm-hmm. kontaan si torop di wax ne Gambia dafa am talent. mu mel ni ñoom ñu ngi doog ràññee at yu ñuy ñëw Gambia. Mm. di fi def luñ fay def. Mm-hmm. di fi taxawa ak suñu artistes yi yëpp ñoom ñu ngi doog ràññee ne Gambia ñun am nañ talent. loolu la demee loolu la demee. moo tax with this thing dafa gën a help Come still like ok this concert you know the xamante like they ko deaf, especially to between Gambia and Sénégal so da I gis the little tamit dafa gën a lu daf ko gën a yokk a doole because ngaaka suñu dina ànd si ñoo xamante ne mosuñoo ñëw Gambia and the music lañ nekk music lañ dee liggéey so loolu tamit is a plus you know to to our Gambian music ticket yi naka la. yeah ticket yi dafa nekk two hundred Tell a ticket yi gave a ana And a ticket, and then go on it. ticket. tickets. ma tickets. You'll be fa lii laa dee nga ñëw si man ma war a waxi 12 octobre. ak ambiance boobu. Mm-hmm. xam nga man xale doosi. damaa waale bu tey tem nga téye ko nag wane gaay ne dëgg dëgg naa waaye nga xaar ma lay lekk ana ticket nga doog a mën noonu lay demee lu ah. nekk dafa am waxtu. ah dafa ñëw toog rek salaamaaleykum ticket yaa ngi nii. bi fa yow yow dinaa la yóbbu fële fële laa laa yóbbu fële foofu foofu fële foofu. <laughs> wala laa laa yóbbu wala terminal bi lay fii sax nga xam ne nga xam ne lan nga fi romb. féeri yëpp stop féeri yëpp stop xanaa kon dafa defar bi dafa suy. ticket si 200. 200 uh, la naa xam naa ko 200 la 300 ak 500. mu ngi nii 200 la benn. balaa mooy prix sales yi. non prix sales yaa ngi nii 2 and then nga gis three arch si bunta and five arch VIP ticket ticket yaa ngi nii daa amee waaw so bul jéem a wone comme baane balaa gars yi di saaka pee gis nga ko tara tara biri bara bara biri jeex na. xam <laughs> nga lu biir faa <laughs> piraat bi dañu soona ñëpp a ngi daw piraat si piraat ki waaye bu leen nu rey. piraat ah, bi la muy bañ moo tax. yéen ñoo ko déggandoon Big Wa deful dara mu cher daf ko yombal askan bi yombal ko fansami yombal ko ñëpp ànd ak xam nga rek Big Fa gis ko yomb ndaanaan bu mel ni Big Fa mu am nga waroon a woote laajte xaalis bu cher. mais mu def ko mu yomb tam ànd ca foreign artist muy ñëw Gambia for the first time lii nar a xew Gambia for the first time waaye benn teeral bi faamu ne man naa ko yombale sama gaañ ñi ah, def ko 200 nga dem si bunta bi jëndee ko 300 VIP nga toog dallu lool nekk sa óolalaa di yëg sa bopp ñu ne 500 dalasi biir faa dara fayul na biir faa fi nga fëlee nooy na. macha allah because lii soo gisee ñu def ko di comme lu is Gambian thing is Gambia versus Senegal so bugguñu pour nga nekk Gambia sax nga nekk xale sax nga ne non aw ma njëgi ticket non is open for everyone comme ñëpp ñëpp ñëpp you know, xale mag góor ak jigéen ñu ñëw bu fekkee bés bi because it's gonna be a history and waruñu la ko nettali because tamit is our development is Gambia mooy dem si kanam and is Gambian music developing is Gambian music to the next level because you know Gambian music mooy am ndam tey Gambian music su feesale stadium Gambian music moo am ndam and Gambia ñoo am ndam because tey ñun like ok lan moo tax ñuy xam uh, ñuy xam yeneen yi dëkka yeneen dëkka because seen nit yaa leen rëyloo bañ fii so ñun tamit a ñaan loolu suñ nit yi ñu jël ñu foofu noonu te yeneen nit tamit mun more funkier, come run soon it will be funky. Because stomach like okay, everything charity begins at home. So like okay, let me munti am that feel that they started. They big far, big far, Gambia started, you know. They Senegal they want big far, it's because of Gambia. They America they want big far, it's because of Gambia. They Europe they want big far, it's because of Gambia. you know moo tax tamit like ok ñuy ñaanaan Gambia yéen ñu ñëw ñu yomal leen leen ticket bi ñu ñëw ñu dugal ñu def bi di pare di di di shout out bi yéen you Germany Norway Sweden you know what like Sweden moom oh ma gaa lots fun there lots fun fans yu bëri laa am Sweden you know di wax gars yow ku munta ñëw tamit you know jëndalal sa mbokku ticket mu dem. sa gars yi ticket comme ku fa nekk nga mbokk fi. waaw boo mënut a ñëw jot bi. wala yaa ngi xaar dixième pour ñëw am nga mbokk jëndalal sa sister wala nga jëndal sa brother. wala nga jëndal sa frère mu dem représenter la foofu noonu. bu fa nekkee rek yaa ngi Canada Canada Canada Canada. gaa yaa pare Amérique yéen a ngi pare Spain yéen pare ma ne gaa yi pare yee. ñoo ngi pare. jeex ñëpp a ngi pare ñun pare dañ pare préparé tout su des na si. Well, angalam bi mu ne lan a prepared man is different from a prepared man. jeex na big five is a prepared man. mu jeex tàkk waaw loolu lañ koy waxee ah, balaa ñuy dem rek ah, ñu wax leen ah, big five moo leen fi toogaloon 12 octobre la ñu wax Gambia versus Sénégal Guédiawaye versus Talending Ngaka Blinde versus big five fan yii nag bu ne Dakar la dégg ngeen ko benn ñaar ñett mu wax làkk si tuuti français. ñëpp a si oui oui oui c'est comme ça c'est comme ça quoi. C'est comme ça quoi, la 12 octobre. Non, non, non, Dieu le 12. Le 12. <laughs> C'est comme ça quoi, oui. Euh, la, la, la octobre, la, la 12 octobre quoi. À la stadium. Start. Start quoi. I'm on the book. On the book, là, nous Eh, fan yii nag gune Dakar la gune Géejawaay la mm. eh, mu ne dafay daagoo Dakar bu ko neexee eh, suy génn ñëpp ko ràññee xàmmee ko si reedam bi fu muy fëlee koppateem bi ak ay jàkkaam doon am Nigerian xaw ma lu mu doon prince boppam doon prince boppam Big Faa fii dañ koy ràññee te mu fula ak t-shirtam di wane ne coow li coow li 12 octobre waaye ma wax leen nag 12 octobre 6 o'clock la wax make sure leen ngeen nekk fa bu leen dem di xitoo si ay buntu di wax aw ma ticket bu leen ko nangu jënd leen ko teel egg fa teel wane ni Gambie ñun Gambie lañ am Gambian music lañ am Big Faa su demee ñun ñoo dem du Big Faa kesee dem ah te ñu woote nu ne Big Faa lu jëlee stadium si ticket yi yëpp si ñun lay dellu ndax dina am part bi nga xamante ne si ñun lay dellu te Big Faa yëpp fii la spend ndax ay apple lay jënd ay meew ay juus ay sampo te bu ko jëndee si ñun lay dellu ñëw dem jëli di commencé jaay apple yéen ma gën a xam ma bii fa maa ko gën a gën a kooku lay xullee ah mu ne la xulli eet kooku di ngàkk bi leen dina jógee géejawaay ah, ñëw ak si fii ak beneen mm. artiste bu muy ñëw ah, ñëw feeñal ko Gambie moom tamit bu ñëwee fii ñu ne fan la Banjul buñ ne waa Banjul génn si leen da ngeen ne am daanaka buy dugg si mu ne du jaar airport. mu ne yéen si seen biir dëkk bi daagu ñëw biir Gambia ñëw uyu si biig faar ndax ku la ookule nga uyu si ko ndax bu la waxul jox la te biig faar xam naa bi yoon bii du yomb waaye dinañ bàyyi fii 12 ah, octobre bi 12 octobre kese du event waaye 16 novembre am nañ beneen event buy ñëw buñ ne Rankambisan Volunteer sa xel oh, dina dem Bright Star Entertainment Bright Star may ñu si loo wax Bright Star ñooñu superstar la ñooñu tey like ok foo leen yóbbu si wool bi rek mun nañoo def ñu ñoo and they can entertain ku nekk si wool yow ñooñu non comment Bright Star moom yàlla leen yàlla you know gën a leeralal yoon bi and yàlla may leen ku leen a support si lu ñoo def because loolu leen manqué Gambia da nga gis a very good talent ba kuy nekk si gannaaw financially you know yow if you are not strong da ngaa mujjee bàyyi because yaa am pour defal everything sa boppa gars yi they don't they don't they don't like ok comme ñu ne bàyyi ñu naka la ko waxee sax bàyyi ñu yar talent bi wala dundal ko wala jiw garab bi roose ko même jur non Gambia dunde def dañ dee manqué loolu foog nga dem dem ba bu dee like balaa ñu laa yëg balaa ñu laa gis. Bright Star dañoo nekk si event bi stadium non def nañ benn affaire bu ndaw sax pare na di ngeen ko gis léegi du yàlla naa leen ko jox ngeen post ko non gis ko mooy Bright Star ñu def. dinañu ne ñu naan Bright Star ah, volume one bi defoon nañ ko fii. Mm. Gambie yëpp di ko waxantoo. ñu mm. eh, defee woon ko fi ñu xamee ñu solu woon solu maquillage tig. bi mhm. fayaan fàttaliku tip tip tip la ngay solo nag précis ñu ko doon seetaan ñu demoon foofu la and white bi ñu nekkoon fa Gambien artiste yi bu ñu ko defee bu naay sol trop ah, ñu def ranxa bisaab bi nga xamante ne am na ñu ko fonk ñeneen dañu waa lekk baadoona la waaye boo def lu bare sànq tamit dañ la wax ne dafay faj day faj kay dafay faj lu muy faj day faj tooy <laughs> waaw moo tax big fa doo am tooy big fa ak yuuxoo mii Big Fat du am tooy. Big Fat énergie bi mbaa dafa am bisaab bi. wala day activé moom moom la dee dóor. moom day activé. waaw mm-hmm. bi yoon nag euh, gars yi presta am nga fu ñu oote penc mi xool lañu wax ñu ne bi yoon penc mi xool lañ koy defee euh, te bi yoon dañuy ñëw ak Ndola style. last time ñoom ñoom dañ bëri style. dañ bëri moom like ok different style. dañ fa sa style. waaw bi yoon su ma ñëwee stadium dinaa wax ñu imité ma Big Fat. ma xool ndax suñu yuuxoo am ñetti biig fa xaw ma ñeneen oo juróomi biig fa si stage bi su boobaa ñëpp xam ne dëgg la ñoom tamit ñu ngi waajal seen si ñu leen ay wax ngeen génne support li ngeen am ah, am nay stadium beneen event bu fa war a am disul tamit mu ngi oote. of euh, moom tamit ngi oote foofu nga xam ne. mooy stadium December 7. December 7. moom tamit. defoon na ko stadium. mu fees dafa baax ñëpp mu mel yu fekkee mu ne stadium te bi yoon bu demee stadium mu ne nu mu meloon lu ko ëpp la nar a mel ak artiste yu taxaw ci gannaawam bàpp ko Gambie suñ dimbale woon ku nekk taxawu keneen ki rek ah, dina dem bi paa ku ñëwee ak ngaaka ñëpp génn si taxaw ko keneen kon gambe ah, dina dem ah, boobu tamit di ñëw ñu am diir bi album attaque man koo def Q-City. tatiyet ndaa kooku suma jarbaati boppa la. sa jarbaati boppa la. moom tamit dirg album ngay ñëw tatiyet foofu sa uh, Q-City. waaw ñuy wax uh, nit ñi event si war a ñëw dafa bëri trop waaye am na event bu important bu war a ñëw Gambia. Mm-hmm. bi fa amoon na time soo taalee télé. Mm-hmm. national télévision da nga dee gis Ami Chérie. waaw yaa ngi fàttali ko. ñu bëri fàtte nañ kooku léegi. dama dee wax moom. Angleterre. Angleterre waaw. Bal moom moo dee dugalante yëfi Angleterre yi. Mm-hmm. waaw moom tamit moom tamit na jënd ticket pour gaayam yi ñu ne bu ñu jibbi. waaw ah. maa ngi leen koy wax. tey boobu noonu anti anti nuyu naa la. nuyu naa la waaw loolu lii yëpp dafay kàttan pour nga jënd ticket dina jënd. ticket ah, dina jënd ticket dina jënd ticket dina jënd ticket. waaw boobu tamit ah, amoon na fi time théâtre di xelal nit ñi di indi mm-hmm. suñuy bët. Mm-hmm. di ñu jàngal si yu bëri. ay drama soosé and everything daf fi daan am mu jékki-jékki yëf yi dee bari woon na fi waaye yëf yi dafa dem ba dee euh, am ñi nga xamante ne dañ jóg es ñu ne dañ jóg pour dekkil théâtre biir Gambia mm. oote woon nañ fi press conference ñu ngi organise a two day training bi nga xamante ne dañ bugg a dekkil euh, li nga xam ne mooy théâtre all drama groups yi Gambia foo munti nekk rek ñu ngi lay woo ñu ne bii yoon euh, Greater Banjul area bi Kanifing municipality foofu la ñuy liggéey ay comédie soo paree naa jël seen noppay loolu du ñu boole xaaral ma pare alvaar la muy def ak ma bëgg promo. non wuyu ma la promo bi dañuy mujjee tàggatoo. waaw dañuy tàggatoo waaye foog ñu wax si event boobu noonu on the 25th ak 24th foofu sa Eboudiane Theatre ah, drama group si yëpp dañ fa oo ah, ñuy wax ne bés boobu noonu lañ laa jox team nga àgg si ñu jox la time nga wane sa bopp wane li nga mun. bu boobaa lépp dina leer soo demee foofu noonu biig fa loo joxoon jaay ñu dogg ko xaaral ba nga dem yow ay lekk def laa sa ma ci raxaat si théâtre man rôle moom la jël biir film bi la ñuy amee accident théâtre bi yaa wax loolu lañ leen wax ah ñu leen wax biig fa moo one one fest ba on the Big Faa moom moomee Gambie mais on the 25 su jotee Big Faa dafay batare bi daf koy keneen mu ko carte gi tamit dem ñu jox ko keneen ak keneen ñu wax leen ah, event si war a ñëw dafa bëri torop ku nekk a ngee wax 3 years bi 5 years bi mu ngi xamal ne mbir mi waaye ñu wax leen na seen xel dal ah, Gambia nañu am dëkk jàmm la suñu artiste yaa ngi ñuy waajal lu bëree bëree bëri ñu ñuy waajal entertainment waajal lu ñu neex ma leen lay wax fàtte leen yooyu lu nit ñi wax te waajal li nga xamante ne mooy 12 octobre waajal li nga xamante ne mooy 16 novembre tati yet bu leen fàtte on the seven yëpp dina ma neex du ma def dara damay wax biir fànn tàggatoo sunguti ñi ma may nañu ko suñ demee stadium boobu dafay toj biig fa dafa ñëw ak feem yu ees biig fa waxum bi sa yan façon yi fan dama rab bi dina am track bu ees bu ma doxal diggante biig fa ak nga. Bril Barab dafa amoon tur rek waaye léegi am na jéem a 12 octobre ca stadium bi dina mel ni yàppa ci doma this is bigger than rap terka moo yàlla faasa te gémmiñ ñu dul wax dëgga tey rek dinaa len fata foog rap rules bi fa lu mooy def te jaar si digga man amuma woon parce que ma liif man dama góoru man dama ko man dama ko runga xam suma jiko rendi fi rapa mooy suma jikko hundred percent énergie tuhuma taay te naanuma li ko jeexal naa fii ma jóge wama lu fi des man ma jekkal li ko man ak rapa gu ñu xare dereti la galaan di ko guma sura guma téere gi maa ngi ni diray October, Independence Stadium, live and direct, Big Fa versus Ngaka Blende, Senegal versus Gambia. Hey, Talending ak Guédiawaye la T-Town. <laughs> gars yow bi jeex na jeex na. jeex na caag caag affaire si de rajaxe na Big Faa toj na fi dégg ngeen ko waxee. dara si rapa ita min kam léegi rap Gambien yëpp ay dumbal ñu yëpp dara naka ñoo ah ñoo ko gisandoo dina lay jaajëfal dina lay jox dig daje ba beneen yoon incha allah big fan lañ fi toogaloon ma toogoon fii ak yéen nekk si seen kanam di leen di bégal saa su nekk alarba bu nekk li lañ fi am pour yéen mën na seen xarit seen soppe seen doomu day sopp la jëri borom nag ak jadi Hadi Sow di jaajëfal suma caméra lady kooku di Sira Jaaju di jaajëfal képp ki nga xamante ne da ngay Gambian Talents TV You Favorite Online TV for munti yaa ngi nekk Seattle yaa ngi nekk biir Amérique yaa ngi nekk biir euh, Europe nekk Sénégal nekk Gambie foo mënti nekk ci àdduna bi Italie fu nekk rek ñu ngi lay bëggal bu baax a baax di leen lay jaajëfal bu baax di leen lay wax ne saa su nekk bu leen di fàtte di jàpp si ñun di jàpp suñuy gannaaw dimbali ñun ndax ñu mun a naaw bu ñu naawee rek lépp loo xamante ne talal na biir Gambie dinañ naaw ànd ak moom si boobaa yëpp fees ñëpp gis lu fi nekk on the twelve la ñu wax waaye on eight nga xam ne leen dafa nar a dugg Gambie bii Fam moo ko wax de gis ngeen fu mu fëleetee t-shirt bi boo leen buggee yeneen gis yeneen ah bentee boobu la dégg ngeen tickets yi wax na tickets yi 200 la waaye si bunte bi 300 la muy doon ah, VIP 500 lépp rek bañ ngeen mer dina lay jaajëfal bu baax a baax a baax dina lay jox dëgg la beneen yoon tey it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo ah dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Shoe Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu ba mu set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamine Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Keresu Investment Limited mu ngi la ko fa amal Keresu Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash price muy jar si ñaar téeméeri junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi mortgage mortgage nag foo ko dégg mooy euh, fay nanka-nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benni weer ah dama ne Kayrasu Properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw ba nag Kayrasu Properties daw leen